من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه ومن والاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة ixwatal iman asalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu euh, mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm ñëwaat nañ ci suñu tafsirul quran àndaat ak yéen ci euh, télé bu am solo bi di muslih tv euh, di ñaanal waa kër gi yépp yàlla na yàlla barkeel sàmm leen barkeel seen liggéey bi passé ñi ngi àndoon ak yéen ci suuratul fatiha euh, muy tafsir woo xamante ne tënku na lool ndax euh, temps bi waaye ala kulli xaalin euh, li ci ëpp solo mooy nga xam lan la borom bi di wax ci aaye bu nekk tey incha allah ñu tàmbali ak yéen ci suuratul baqara suuratul baqara al baqaratu mooy tekki nag lu tax saar bi yàlla tuddee ko loolu mooy def ci nettali benn histoire boo xam ne yàlla def ci tuddaale nag moo tax mu tuddee saar wi suuratul baqara suuratu baqara makka xawma madina la wàcc suuratu baqara ci saar yi nga xam ne madina la wàcc ci la bokk niñ ko waxee woon ni alquran dafa am yuñ askanalee màkka ak saar yi ñu askanalee madina suratu baqara bii nag ci ñu askanalee madina la bokk moo tax ñu koy woowee almadaniya suratu baqara mi ngi am ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar am na ñu wax sax juróom ñett fukk ak juróom benn wa ala kulli xaalin li gën a not mooy am na ñaari téeméeri euh, aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar muy 287 verset suratu baqara borom bi subhaanahu wa mi ngi ko commencé di wax ay melokaan ci ay jullit ñi ko gëm mun toll ci juróomi aaya mu jël ñaari aaya jagleel ko yéeféer yi ndax ñoom nangu nañ ne gëmuñu yàlla mu jeex waaye li ci ëpp li des yépp nag yàlla mi ngi koy wax ak naafeq yi ndax gëmuñu weddi wuñu kon moo gën a grave li nga xam ne mooy ab yéeféer ndax yéeféer bi moom taxaw na ni gëwuma weddi mu leer nañ mais kii dafa nekk ci biir jullit ñi ne gëm na waaye ndeke leneen la gëm moo tax boroom subhaanahu wa jagleel leen ci saar wi lu bare bare bari loo xam ne jagleelu ko yéeféeri suratu baqara borom bi subhaanahu wa taala mi ngi ko ti tijjee xuruuful muqattaa xuruuful muqattaa mooy ay lettre la yoo xam ne borom bi daf ko codé te laa yaalamu taawiluha illa huwa moom rek moo xam lan la jublu ci euh, xaraf yooyu te bëri na ci alquran du moom kese boo demee dinga fekk borom bi naan kaaha ya aynu saad loolu ay xuruf la yu borom bi codé di fa fekk muy wax alif laam miim comme ni suratu baqara tàmbalee waaye di nga fekk mu naan alif laam ra di nga fekk mu naan xaamiim di nga fekk muy wax alif laam miim ra waaw yooyu yëpp bi subhaanahu wa daf ko tijjee yenn ci saaru alquraan yi ñu tuddee leen xuruuful muqataa boroom xam-xam yi nag wax ci lu baree baree bare ñu ne alif bi turu yàlla la muy allahu ñu ne laam bi turu yàlla la muy latifu ñu ne miim bi turu yàlla la muy majid am na ñu wax lool am ñu ne alif laam miim dafa mel ni ngay tàmbali wax jël micro naan alo alo pour nit ñi déglu la bañ dara rëcc leen ci li ngay wax ñu ne moom la alif laam miim di tekki mooy boo ne alif miim ba ñépp gestu nga wax leen li leen bëgg a wax waaye li gëna a not ci firi yi te boroom xam-xam yu ëpp di ko wax mooy allahu alamu bi muraadihi bi dhalik yàlla moo xam lan la namm ci xaraf yooyu moo tax ñu ne laa yaalamu taawiluha illa huwa kenn xamul lami muy tekki lu dul moom moo tax ñuy tàmbale saar bi insha allah yonent bi alayhi salaatu salaam nee na alquran benn xaraf bu ci nekk fukki tiyaaba la waaye mu ne waxuma alif laam miim mu ne alif laam miim waxuma mane mooy xaraf waaye alifun xaraf la laamun xaraf la miimun xaraf la kon boo alif laam miim muy ñetti xaraf dangay ngay am trente tiyaaba alquran noon lañ la ko borom bi subhanahu wa di fayee moo tax bu ne alif laam miim tafsir bi gën a wér mooy borom bi subhanahu wa taala moo xam lim si jublu dalika alkitaabu téere bii laa rayba fiihi amul sikk sàkk sikk sàkk nekku ci ne hudan njub la lil muttaqina ñeel ñi ragal yàlla xam nga zalika ci làngu arab mooy joxeñ lu sori te fekk téere baa ngi nii boroom xam-xam yi ñu ne yonanti bi alayhi salaatu yàlla daf ko diggoon ne ko am na téere bu ma lay jox ba mu ko joxee téere bi nag ba mu pare la ko joxeñ ne ko téere bi mooy téere ba ma la diggoon moo tax mu jëfandikoo baatu zalika mu nekk lu sori lool daalikal kitaabu mu ne ko téere bi laa rayba amul sikk sàkka fiihi ci biir téere bi walla ñu ne laa rayba fii amul sikk sàkk ci téere bi ne hudan njub la lil muttaqiin ñeel ñi ragal yàlla ñi ragal yàlla nag borom subhaanahu moo ñu ko leeralal ci saar wi jikko yii muy tudd képp ku ko melawoo rek xamal ni bokk nga ci muttaqiin yi ku ko meloowul bokkoo ci yàlla mu ne allazina mooy gaa yi nga xam ne yuminuuna gëm nañ bil xay bi ci kumpa gisuñu yàlla gisuñu aljanna gisuñu safara waaye gëm nañ ko wa yuqimuuna salaata ñuy taxawal julli respecté ko di ko def ci waxtoom di ko def ci anam bu baax àndak njàpp bu sell te duñ ko parax-paraxee duñ ko yàkkamti dañuy teewlu ci tari di settantal aaye wa mimma razaqnaahum te lu ñu leen wërsëgal ñun yàlla yunfiquuna dañ ciy joxe yàlla mi ne ñi gëm yàlla ñoom ñoo melokaanoo melokaan yii nii mu wax yemul foofu mu ne wallazina mooy ñi nga xam ne yuminuuna gëm nañ bima unzila ci li ñu wàccee ilayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy alquran wa ma unzila ak li ñu min qablika la la te mooy tawraat ak injil ak zabuur téere yi nga xam ne wàcce woon na ko ci ñi la jiitu woon yàlla mu ne ci ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nañ alquran bi ñu wàccee ci yow waaye gëm nañ téere yi nga xam ne moo la jiitu woon moo tax jullit bi amul droit weddi benn yonant ni ngay gëmee yonant yàlla muhammad noonu ngay gëmee yonant yàlla isa ak yonant yàlla muusa boo leen weddee da ngay sa weddi yàlla du baax sa gëm yàlla du baax da ngay génn ci lislaam borom subhaanahu taala mu ne jaamam yi nag ah wa bil axirati ci àllaaxira hum ñoom yuqinuun am nañ ci kóolute bu dëgër ci na dina am kon bokkuñu ci ñi nga xam ne dañ koy wedd yàlla mu ne ulaayika ñii ma wax nag mooy ñi nga xam ne gëm nañ yàlla ci kumpa dañuy taxawal julli respecté ko lu leen yàlla wërsëgal ñu joxe ko gëm li ñu wàccee ci yow gëm li ñu wàccee ci la jiitu woon gëm allaaxira gëm gu wér gu dëgër yàlla mu ne ulaayika ñi ala hudan ñoo nekk ci njub min rabbihim bu jóge ci seen borom kon njub gi du ñoom ñoo ko sabablu waaye ci yàlla la jóge ginnaaw ba ñu jaaree ci étape yu am solo yi wa ulaayika te ñii nag hum ñoom dëgg-dëgg almuflixuun ñoom ñooy ñi texe kon ku bëgg a gis ñu texe jàngal commencement wu suratu baqara ba ci juróomeelu aaya bi di nga xam ñi yàlla wax ni ñoom ñoo texe mooy ñii mu tudd fii léegi kon euh, mi ngoog parti bi la borom bi subhaanahu jagleel ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm te topp ko aaya yi may bëgg a jàng mooy aaya yi nga xam ne moom la jagleel yéeféer yi yàlla mu ne inna alladina gaa yi nga xam ne kafaru weddi nañu yàlla sawaun alayhim moo yem ci ñoom a anzartahum moo xam waar nga leen am lam tunzirhum walla waaroo leen laa yuminuuna na duñu gëm dafa am ñoo xamante ne lu leen nit ñi waar loo jël sa temps cent boo fi toogoon di leen waar yàlla mu ne duñ gëm lu tax du seen coobare mais man yàlla man maa leen xañ ngëm googu ndax xam naa ne ci kéefër lañuy ñuy dee yàlla yàlla musal ñu ci lool yàlla mu ne lu tax buñ leen waaree ak ñu ñàkk leen a waar duñu gëm parce que yàlla moo tëj ala qulubihim ci seeni xol ba duñ gis njub ba duñ dégg njub wa ala sam'ihim ak ci seen nopp yi ba lu baax duñ ko dégg mukk wa ala absaarihim ca seen bët ya tamit xichawatun maa ci def ab muuraay maa ko muur ba duñ gis dara ci lu baax xam nga ni lii metti na koo xamante ni yàlla tëj na sa xol sa bët say nopp ba njub doo ko gis doo ko dégg doo ko xenc doo ko sentir yàlla mu ne ñii nag wala hum ñeel ne leen azabun bugal azimun bu metti xam nga ne lii dara gënu koo rëy dara gënu koo metti ci nit koo xamante ne nit ñépp xam nañ ne kuréer la nit ñépp xam nañ ni ab yéefér la kon borom subhanahu leeralal nañu ne weddi yàlla daal ndeke danger bu rëy rëy rëy la moo tax jullit bi fi mu toll war na xëy di ñaan boroom subhanahu li nga xam ne mooy njub ñaari aaya yooyu la borom subhanahu wa jagleel li nga xam ne ñooy yéeféer yi ndax waxam ci ñoom du bari ndax xam na ni weddi nañ ba pare ñi nga xamante ni la waxam di bari ci ñoom mooy ñi ngay ñi ñuy tuddee almunafiqun almunaafiquun mooy ñi nga xam ne bokkuñu fii bokkuñu fële loolu la yàlla wax nee na laa ilaa haula wala ilaa haula bokkuñu ci jullit ñi bokkuñu ci yéeféer yi yonent bi wala alquran nee na naafiq yi fi gën a métti ci safara fa la ñu nekk ndax mooy fi gën a suufe boo toggee ba pare li ñuy wax xooñ li tax muy ñuul mooy li mu nekk ci suufa suufa tax yàlla nag mu ne naafiq yi fa lañ jëm parce dañuy feeñal ak ngëm yàlla waaye dañuy nëbb ak weddi ba nit ñi mën a leen a xàmmee yàlla rek moom moo leen mën a xàmmee kon borom bi subhaanahu loolu la wax ci saar wi di suratu baqara wax naa la commencement bi mi ngi ko jagleel ñi gëm yàlla ñaari aaya yi mu jagleel ko ñi ko weddi aaya yi ci topp nag li muy bari yépp yàlla mi ngi ko jagleel naafiq yàlla moo tax mu ne baada aus billahi min ashaitan rajim wa min annaasi am na ci nit ñi man ñoo xam ne yaquulu dañuy wax naan man naa ñun de gëm nañ billaahi yàlla wa bil yawmil aaxiri gëm nañ bis bu mujj ba yàlla mu ne wa maahum déet ñoom bi muminina ñuy gëm dañuy soob gëmuñu ñoom ñoo ko wax ci seeni làmmin toog ci biir nit ñi di ngandal yére ak di discours discours yu bari ah, ak di séddale ay ñamaki ay lekkat ak di yuuxu fii buñ tuddee yonent bi ñuy daanu yàlla mu ne gëmuñu ci dara dañuy soob ay dóorkat lañ yàlla mu ne ulaayika wa maa hum bi ñii gëmuñu dara lu tax yuxaadicuuna allaha dañuy jéem a wor yàlla jéem koo nax walladina amanu ak ñi gëm yàlla dañ leen a bëgg naxaale yàlla nag mu ne wa maa yaxdauna naxuñu illaa anfusahum lu dul seen bopp seen bopp lañuy nax ndax lay tàng ci seen kaw la jëm wa maa yashuruun te yëguñu ne sax seen bopp lañuy nax lu tax fii qulubihim nekk na ci seen xol ya maradun feebaru naafiq fa zaadahumullah yàlla dolli leen maradan beneen feebaru naafiq mu gën a tar nga xam ne ci lañuy ñuy walahum ñeel na leen adaabun mbugal alimu bu metti lool bi kaanu ca nekk ga ñu nekkoon yakdibuna di ko weddi aaye borom bi subhanahu wa taala euh, kon xam naa foofu la ñuy taxawali insha allah bu ñu ñëwaatee ñu yeggali euh, saar wi ak aaye yi nga xam ne am na solo lool borom subhanahu wa di ci wax ak naafiq yi yàlla na yàlla leeralal ñu ngëm ba mu leer mu may ñu kàttan buñ ko toppee yàlla na ñu leeralal ngëmadi ba mu leer naññi mu may ñu kàttan buñ ko moytoo hada wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wassalaamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh